alhamdulillahi alladi hadaana li haza wama kunna linahtadiya lawla an hadaana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi toogee jataayu Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf ataala llahu baqaahu wa ayyadahu wa nasarahu kon ci ndigalam lañ ñëw fii di leen jët kàddu yu bàyyi ko ci moom ci këram gu tedd gi mu nekk ci biir nga xam ne yërëm ko ci coono bi tax waaye dara doy ko ci woon lu may toogal boppam ñëpp gis ko ndax li xew tax muy kàddu yoo xam ne nag ngi koy jëmale ci bokk jullit yëpp ak bokk taalibe bi murid yëpp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi weesu di gan ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te Serigne Touba fonkon ko lool daa ko dundalal boppam ak jek ahiyatu mawlidan nabi min asasi ba ci njarem kon ñi ngi ñaan lim ci daale ci biir jës fu ñëpp jàng ko dégg ko te xam ne mën naa suñu mbir ci aduna ak alakhirah la ca dolli ko waat mooy kaddu yu masaw yëm ci mbolem koo xam ne rek loro nga ci xewal gi nga xam ne suñ borom ko wacce ci kaw suuf muy taw bi waaye rawatina nag ñi dëkk Touba sëriñ bi nee nag képp ku fi dëkk rek te ndox mi laar laal sa kër wala mu laal sa alal wala lu mu mën a doon rek sëriñ bi wax na ne mi ngi lay masawu ci loolu te di ko ànd ak yow bu baax a baax a baax ngir xam ne bu soñoon képp ku dëkk ci dëkk bi rek jàmm nga fi nekke waaye nag nañ xam ne lu baax moo dul yomb te Touba nag moom la Serigne Touba waxoon ne daa waxoon ne ku fi sam xel indiwut saw xel dina la indi kon xam na ne ñëpp dañoo gàddaay seeni dëkk ngir tumuranke ak jaaxle ak bëgg dëkk ak Serigne bi kon bu sañoon ku fi dëkk kune ci jàmm nga fi nekke ci teraanga rek nga fi nekke waaye yàlla suñ borom ci boppam nag moom ay dogalam te kenn du ko xëccoo moom. mooy seet lu ko soob mu def ko te xam ngeen ne moom moom mii borom liggéey bii di sëriñ bi xam ngeen nekk na ci Gabon samaaniya xijajin illa xalilan lu jóge juróom-ñetti at muy sottu ki ci ab taw kon loolu ku ci xool rek lu mett métti métti da am xolub jëm ko muñ waaye sëriñ bi nag nee na xam na ne taalibe yërmaane jëm leen ëndal mooy la Serigne Touba waxoon rek wala wàccu maahil xuma mi ba soñoon kenn du fi dikkee njàqare moo tax mi ngi masaw bokki taalib yëpp ci lii xew ànd ko ñoom ndax lii kat xeexoo la boo xam ne bayuut kenn bayuut kilifa bayuutub taalibe bayuut kenn ñëpp la dal seen kaw ndax kenn ku ne lañ ci yëgal sa bopp mën naa naa mën naa wax ne man mii jot li kàddu yi sax dañ ma mujj jël si oto waaye sama oto sax mënta génn sama kër kon ñëpp la laal laalu ka gën a suufe ba ci gën a ka gën a kawe ñëpp ko yëg mhm. jumaay Tuubaa ji li ko wër gis ngeen ni meloon kon mbir la mu wàcc moo xam ne suñ borom nag boo koy ñaan lama doon wax démb rek te sëñ bi daal waxoon ne yàlla boo ko ñaanee la nga gën a bëgg day seet la nga gën a bañ boole ci kon nag sëriñ bi nee na taalibe yi xam ne mettit bi nekke nekkee ak tumuraanke gi ñu nekkee ak jaaxal gi ñu waaye nag bu ñu xoolee ci jëmmam ak yërmaande jëm ñu andi ëmbal rek nañu wóor ne yàgg-yàgg danañ tàggoog moom kon loolu mi ngi ciy dalal xel ñëpp te li ko ci war fekkoon fekkoon na ko ci waaye da koy gën a dolli dolliwaat kon nañ xam ne sëriñ bi dafa wax ne ci biir loolu nag sëriñ tubaa dafa am lum mu digaloon taalibe yi bi muy digle jumaay Tuubaa ji waxoon ne ku ne na ci joxe ñaar fukk ak juróom-ñett lam waxoon ci ndénkaane yi dafa waxoon ne lii ma leen di digal nag fu waa jëm nag fu yóbbaale mooy lépp lu ngeen bëggati wala lépp lu ngeen sumbati rawat na lu mel ne néegu yàlla bi na ngeen ci góorlu seen kemtalaay kattan def ca la ngeen la ngeen man ak la ngeen mënut te lu ngeen ca mënut fu ci seen doole yem ngeen dem laxasaayu wuti ko ci anam ko sell te fu ci seen kattan yem ngeen toog xaar fa sa ijaalullahu baada usin yusran daana trikki nag maa ngi leen di wattandiku loolu lépp ndimbal loo xam ne bu leen fa yalee seen ajo yi dañ leen xañ seen gor xañ leen seen xajamal seen xañ leen seen jom tilimal seen diine daane loolu nag la jiitu ci la koy maye mooy mën la sabab la jiitu ci la koy xañee mooy ñàkk mën la sabab mm-hmm. kon taalibe ndigal loole lañ topp baraay bi ñëw Touba ndigal la lañ topp ba jumaay Touba ji ñëw ba nëgë ni loolay woy moo tax lu mu mën a doon ak lu mën a xew ji suñ biir itam balañ caa di xaar kenn nañ ko tàmbalee ji suñ bopp ba fuñ ci man a yem ku ñu ciy fekk fekk suñu ca loolaa waral nag sëriñ bi ci yéen maa dem jiyaatu wax na liggéey bii xam na ne nit ñi sonn nañu. ndax ndox mi ñi dugg na seen biir ñi dugg na seen mbedd bi mootuñu jàll mu ne kon yëkkati na ñaar téeméeri million joxe ko ngir tàmbalee ko nag da ko ndax juróomi téeméeri million sax la waroon génne loolu la waxoon da juróomi téeméeri million wala milliard laa war a génne sax joxe ko tàmbalee ko